salaamaaleykum mbokk Sénégal allahumma salli ala sayyidina mawlana muhammadin wa sallim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli euh, mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen jégalu di leen balaax di leen ziar ci weeru koor gi di wax nag ndax taalibe cheikh laa bëgg a doon te sunu xalif bi dane nañu wax ndax ku waxul mbugalu suñu borom ñu ngi lay xaar waxewu ko ni ma ko waxee nag waaw dama damay jéem wax rek li mu wax di wax ci wax ju ñu wax ne Idrissa Seck ko wax ndax lu tax ma ne wax ju ñu wax ne Idrissa Seck ko wax moom li mu wax ne Idrissa Seck loolu la wax méngoowul ak li Idrissa Seck wax ci moo yi ci baat yi ci kàddu gi ci waxit wi benn bi wax na ne Idrissa Seck def ne Jérusalem moom mooy màkk Idrissa waxul loolu ñaar wax na ni Idrissa def ne yonent bi c'est un simple bédouin un berger Idrissa waxul loolu Idrissa def ne juif yi ñoom ñoo ne yonent bi un simple bédouin un simple berger nan la mën a nekkee ñëwee ni moom mooy yonent bi mujj ci yonent yi te donte sax moom Idrissa Seck bu waxoon loolu man déglu naa suñu maam alhaji ibrahima saaxu muy nettali ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xilaasu zahab di wax ne waa Makka mënuñu woon supporter le fait que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw ne leen moom mooy dernier yonent ba tax na lu ne yàq nañ ko ko lu ne def nañ ko ko sotti nañ ko sax ay bëtitu gëléem gu nëpp lu ne yàq nañ ko ko nettali la ki nga xamante ni dafay wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di aji màkk buy jublu buy julli di jublu màkk nañ ko seedeel loolu nañ ko ko seedeel tey bu politik tax ñoom ñu xëy naan ay génn na ci diina jeeg dafa xas yonente bi sallallahu alayhi waxuñu dëgg ki wax loolu waxul dëgg nit buñ la indilee xibaar danga koy saytu fata bayanoo da nga koy seetlu xool ba xam liñ la wax dëgg la wala du dëgg fenn rek laa mën a nangoo fenn rek laa mën a blâmer Idrissa Seck mooy mu naan man xam naa fi xibla gi ne moom xam na fi xibla gi ne parce que fa lay jublu en plus de ça même bu fekkee dafa juum il s'est excusé ci kanamu boromam jéggalu ci kanamu jullit ñi ñi ma gis ñuy wax du ñooy jullit ndax jullit bu la jéggaloo da ko war a jéggal moom yàlla jéggal na ko parce que jéggalu na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Aba Bakar jote naa ko Omar ñëw ni ko Aba Omar jéggal ma Omar lànk mu ñëw jooytu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ne ko soo ko jéggalee yàlla jéggal na ko soo ko jéggalee jéggal naa ko soo ko jéggalul yàlla jéggal na ko soo ko jéggalul jéggal naa ko ñu ne fii di wax wax ju bëri ji jaru ko man taalibe Cheikh laa bëgg a doon damaa jël wér nañu waxante dëgg coow li jaru ko moom daa am candidat wax na ni Macky Sall mooy candidat mënul yóbbu Idrissa Seck safar moom li yàlla wax ni moom mooy xafuur mooy raxim dëggalu ko dëggalu ko na wax ci li yàlla wax yàlla nee na maay xafur maay raxim nit def na lu gën a garaaw di sa Seck def tuub yàlla jégal ko nit rey na cent personnes tuub yàlla jégal ko li mu wax lu ci ne dafa nettali li ko dal rek mooy dafa laal gagne-pain wu ñenn ñi ñi nga xamante ni seen fonds de commerce la lan mooy lan mooy nitu diine bu ñu waxee ñu ne nitu diine politicien nitu diine mooy ko am diine mooy musulman bi musulman bi nitu diine la chrétien bi nitu diine la dañoo am seeni diine loolu mooy nitu diine lan mooy doomu soxna jàpp nañ ne ñoom ñoo war a wax xaala laahu xaala rasul ñoom ñoo ko war a wax ñoom kese ñoo ko moom kon politicien bi moom warul ja am xam warul wax ci diine l'islam moo tax li leen dal di leen dal ñu toog seen kër yi rek politiciens yi di leen jox fan lañu bu teg loolu gënuñu sa Seck moomuñu ko moomuñu aljana moomuñu safara boo leen dee seet seen kër yi sax doo leen gis boo demee seen kër yi di leen seet doo leen gis jaay daraja fan lañu teg fan la teg lii muy wax fan la ko teg tegu ko ci xam-xam tegu ko ci ci ci ci ci maandute maanduwul li mu def du jëfiku maandu senegal dañ xoolaat suñu bopp maa ngi jégalu nag ndax maa ngi wax onze billahi mina sheytaani rajim yàlla nag mooy fal mooy jox nguur ku ko neex moo koy foqati ci ku ko neex maa ngi ñaanal yàlla subhaanahu wa taala mu fal Idrissa Seck bi jaahi saydul wujud wa alami shahud donte taalibe cheikh laa bëgg a doon ku ku ñu ne diw tiijaan la sa xol am jax-jaxal xoolaatal sa bopp ku ñu ne diw murit la sa am jax-jaxal xoolaatal sa bopp Sénégal looloo fi bëri diw tiijaan la diw murit la diw géwél la diw géer la ñu ñu jàpp ne ñoo gën suñu bopp man de dégg mus naa dégg ci Habib Sarr yal na yàlla yokk mu te taas ñu ci barke mu ne julit bu bëggee mucc day def jullit bu moromu jullitam bu mu gis bu dee moo ko mag mu jàpp ne kii def na yiw gu ma gu ma defagul bu gisee moromu jullitam boo xam ne jàpp na ni kii man maa ko mag mu ne kii defagul bàkkaar bu ma yi ma def nit saa yoo ko xoolee xoolal li gën ci moom su ko defee ngeen mën a def fii kenn nanguwul ku fi li ñu li ñu li ñu sonal mooy kenn nanguwul ku la gën kenn nanguwul ku la gën jàpp nañ ni ñoo gën nit ñi li mu wax dara dara dara dara dara aayu ci dara aayu ci te bu ñu waxee seen aqullaahi taala xam ne dara aayu ci imaam yi wax bërki dem ñoom ñoo fi dem euh, jël euh, ambassade Israël koor gi passé ndogoo fa ñu jox leen xaalis ñu koy xëccoo ba weer seen bopp néew ñu dafa juum ci aay yi de néew dafa juum ci baat yi mu wax am na lu gën a am solo lu mu wax zakaat yu ndaw yi ñu màkk di jox di ñu indil ay ay karkaasu xar waxuñu ci loolu waxuñu ci lu am importance loolu lu am solo loolu li ñu wax rek mooy parce que bëgg nañu xeex benn nit parce que li leen déranger mooy le fait que mu dem nekk murid ku ko jox werd ci yéen ku ko jox werd ci yéen bu jëloon wër man taalib man taalibi cheikh bi ma bëgg a doon balaame ko ci loolu jotu la jël werd ku ko jox werd ci yéen ndeyam tiijaan la woon xam naa ci dara baayam tiijaan la woon xam naa ci dara yaayam Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum la daan nooyee ku ko jox weer di ci yéen koo teral tëral ko koo toroxal tuxal ko waaw du yéenay fale du tuubaay fale yàllaay fale xoolaat leen seen bopp sëñ bi da nga am sa candidat xam nañ danga am sa candidat wax nga ko parce que dem nga toog Tiwaawan ne doo wax te waxoo toj toj yaa ko wax yaa ni yow foo waxee wax toj toj waxati nga toj toj nag allahuma salli ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa sallim